alhamdulilahi rabbil alamin mbokki jullit yi noo ngi màggal allah taala wa tabaarak di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi delloo ñu suñuy rëcc rëcc jéggal nu ko waaye jéggal nu suñuy njuumte mbokki jullit yi noo ngi jullitey selmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi di ko ñaanal jàmm moom ak i saxaabaam ak taabiriina lahu bi ixsaanin ila yawmi mbokk julli yi xam ngeen ni weeru koor li ci des ci weer rekk lay toll wala nga ni ñaar fukki fan ak juróom-ñaar su baree ba bari moo ci des ndax dugg nañ shaabaan muy baraxlu li ma daan wax toujours nag moom laay fàttali jigéen ñi di ko fàttali góor ñi képp ko ame woon bor ci koor gi yéex na boo ko fayul ba léegi yéex na waaye du wees pour nga mën koo fay mbokk yi weeru koor weer la woo xam ni dafa wuuteeg yeneen weer yi ndax li ci am ci ay mbir tàqale koog yeneen weer yi daa bari lool bokk na ca rek ne weer la woo xam ne dañuy woor yépp ngir jaamoo ko yàlla weer la woo xam ni mooy anniversaire u alquraanul waaye weer la woo xam ni mooy weeru mooy weeru tabe wàññi dafay def weer la woo xam ni mooy weeru tabe jullit ñi ku ci nekk deuxième jullit ñi ku ci nekk daf ci war a góorgóorlu fexe ba tabe ndax tabekat mooy jikkoy jullit bi gën ci jullit ñi ki yàlla yónni dafa tabe woon lool lool lool ci lu dul koor ak koor mbokk yi weeru koor ci la yàllay jéggal bàkkaar yi ëpp ci xeet wi weeru koor la koy jéggal mën nga ni bis bu nekk ci weeru koor li muy jéggale jëlee leen safara yóbbu leen àjjana lim bu bari lay doon bis bu nekk ci weeru koor bi koor tàmbalee ba ba ñuy ñëw ci fanu laylatul qadr bis bu nekk nombre bi yàllay jéggal fi ñu ñëwee ba jouru laylatul qadr day boolewaat nombre bu toll noonu jéggalaat leen lan moo tax laylatul qadri xayrun min alfi kon mbokk yi weer woowu képp kuy jullit war nga koo fagaruwaale waaye nga fagaroo ko tabe ndax sa yonent dañu koo tagg ci lépp mu tabe lool ci albazl wa saxa poosam daawu ci denc dara lu mu yore ku ko soxla mu jox la ko du gis jullit mu nekk ci benn jafe-jafe mu di ko seetaan moo xam mu am wala mu ñàkk su amee da koy faj fasaasa su amul mu ànd ak yow <clears throat> ngir fajal la ko te xam ngeen ni loolu moom la ñuy tuddee at tadaamun muy lu ñu tuddee solidarité jàppalante ak nit ñi mbokk yi yàlla subhaanahu wa ku tabe la waaye gën naa tabe ci ñun ndax weeru koor yi may nañu ci cadeau bi gën a rëy ci suñu dund mooy fiihi nuzulul quraan wàcc alquraan mbokk yi rekk tabe bu rëy la ndax téere bi gën ci téere yi kàddu gi gën ci kàddu yi di kàddu yi borom bi taala wa tabaarak borom bi jox ñu ko cadeau ci weeru koor shahru ramadan alladi unzila fiihi alquran hudan linnaas wa bayinatin min alhuda wal furqaan kon alquran mi ngi wàcc ci weeru koor kon yàlla tabe na ci ba wàcceel ñu kàddu yi gën ci kàddu yi te mooy kàddoom beneen bi yàlla may ñu ci yónnik yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu jëlee ñu ci lëndëm yóbbu ñu ci leer mu jëlee ñu ci bokkaale indi ñu ci tawhid mbokk yi ana gan tabe moo gën a rëy gii kenn ku nekk ci ñun war ngaa jéem a jël royukaay ci loola nga ne naa fexe ba alquran nekk sama téere ma di ko jàng layla nahaar waaye naa fexe ba li may am kas néew ma di ko bokk ak samay mbokk jullit rawatina weeru koor lu tax weeru koor weeru xiif la weeru yërmande la weeru coono la weeru jaaxle la soo xëyee fajar lekkuloo naanuloo ba jëm timis balaa ngay xalaat loo lekk xalaatal ki nekk sa wet ndax am na ko walla déet yow am nga chance am nga loo ndogoo am nga loo teg am nga loo xam ni bu ñu nee ndogu jot na di nga ko jël nga lekk ko bu dee lu ñuy tàngal nga tàngal ko bu dee lu ñuy seddal nga génne lu sedd nga naan kon yow yàlla mënee na la gan defal na la dimbal waaye xalaatal ñaata ñoo amut loolu ñaata ci parents yi ñoo toog wallahi jënd ñaari mbuusu glace sax pour seen njaboot da leen të indil leen kafe gu ñu naan def leen të kon lu ñuy reeree naka lay demee te nga yëg ni al muminu lil mumin kal bunyaan dangaa war a yëg ni jullit ak moroomam dañoo war a mel ni benn bâtiment birig ci kaw birig taqaloo jàppante ndax yashuddu baadahu baada kon li nga am yow ba mun koo teraloo yàgg sa njaboot bis boo ko terloo yàgg sa njaboot nga bàyyi sa moroom mu toog këram diñe amul lu mu lekk yow say doom ñu ngi wër taabal bi ñee ngi jël pom ñee ngi naan jus ñee ngi xelli kafe ñee ngi xelli bisaab ku nekk naan lii di wër xalaatal ki la ëpp ay doom te amut loolu xalaatal ci doom yu ndaw yi borom juróomi at yi borom ñetti at yi ñeenti at yi nga xam ne xamuñu dara lu dul ñoom lu war a am rek daa war a am xoola say doom nu ñu la wëree di daw di xelli kafe di naan yaay jox ma baay jox ma xalaatal ki nga xam ne ay doomam ñu ngi ni sëmm di xool seen papa di xool seen yaay seen yaay amut lu mu xel jox leen seen papa ngi jeexle amut lu mu xel li jox leen ana ak nite ndax yaa ngi xalaat ci loolu ndax yaa ngi bàyyi xel ni sa doom yi nii ñu kontaan am na ñoo xam ni seeni doom mënuñoo siggi dañoo toog seen papa ñu nga jatu seen yaay ñu nga jatu kon yow boo mënee toog sa njaboot di lekk di naan di daw di dàqante war ngaa xalaat ñi la wër gauche ñii la wër droite nga xalaat ci ñooñu ndax alal bii la yàlla jox nattu la daf lay examiner fii ci àdduna soo réussir nga dem ak àjjana yàlla nañ ko yàlla defal te bokk na ci nag épreuve yi gën a métti ci examen ci yowmal qiyaam mooy li nekk sa poche nga mun koo bokk ak sa moroom ndax bàkkan dafa bëgg alal kon góor góorlul mbokk nga sóor sa mbokk yi nga bokkal nga sóor say dëkkandoo bokk na ci tabe gi gën a rëy yàlla may ñu ko mbokk yi mooy <coughs> jéggal gu mat gi muy jéggal ay jaamam ak goreel gi muy goreel ay jaamam <coughs> yu nekkoon safara moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man saama ramadaana imaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqaddama min dambi nee na képp ku woor weeru koor fekk ngëm yàlla rek moo tax ak bëgg jéggal ak yaakaar yàlla yàlla nee na dana la jéggal say bàkkaar mbokk yi kon weeru koor weeru tabe la jullit bu nekk dafa war a roy tabe al ataa wa saxa wal ixsaan nga fexe ngay def lu baax waaye shahru tawaasul la wa takaaful weeru jokkoo la jokk say mbokk jullit moo xam yi nga bokkal deret walla yi nga bokkal pas-pas nga jokku leen seeti leen walla nga wax ak ñoom téléphone walla nga am yëg-yëg ci ñoom waaye takaaful weer la woo xam ni dangay ngay dimbalanteeg ñi mënul miskin yi ci mbedd yi di ñaan ñi yelwaan ak faqiir yi ci kër yi te mënuñoo génn miskin yi ci biti di yelwaan ñooñu seen problème bariwul boo leen joxul keneen jox leen waaye faqiir yi ci biir kër yi amuñu lu ñuy def mbaa yëg ngeen ni sunu réew am na ci fuqa jigéen ak i góor ñëw ci station yi ñëw ci place publique yi dañuy bàyyi kam tenkam ñëw sa wet ne la njaboot kër ga de bàyyiwuma fa dara yaa ngi xalaat kooku donte nag kenn mënta at lépp waaye xoolal kii ndaw si ni mu toll jeeg bu tool nii lu mën a am yàlla xam waaye ki ñëw bu sëgg sawet ne la kër ga bàyyiwuma fa dara ci waxtu guddi mbokk soo amee loo ko jox jox ko soo ko amee jox ko soo amul nag nga xam ni amuloo léeg-léeg it bul àttee ñépp mbon donte am na ñu koy def fekk dañoo teg seen bopp lu ñu àttanul bën na ci jigéen ñoo xam ne ay natt la ñuy nekk ak yoo xam ne dem nañ ba àttanatuñ ko dañuy bàyyi ba guddi làqatu ñëw di yelwaan di ko mottale seeni natt xam nga ñooñu mënoo leen àtte ak ñi mel ne neen ndax boo bëggee jël ñëpp dugal leen ci benn pañe di nga lor ku lor wut da nga jël àtte koo xam ne yoonam newu ci amal na koo xamante ni jekk na jeeg la waaye danger bi tax nga war koo jox xoolal jigéen bu toll noonu ci waxtu wu mel noonu di laaj kooku fi ko laaj àgg ba mu mën ñëw di ko def bu ànd ak ngor su dajee góor ju bon mën na koo mbon loo bu àndul ak ngor su dajee ak góor gu bon mën na koo mbon loo jàpp naa ni li may wax xam ngeen ko ñaata góor ñuy xëy dem manœuvre ji walla dem liggéeyi ñëw ba ci station taxaw du ñu xam ni ñuy def amuñu lu ñu yóbbu kër ga bàyyiwuñ fa reer te naruñoo naruñoo yóbbu ndékki ëllëg ak añ ñu walbatiku nekk ci oto yi di yelwaan léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy yelwaan sax ci loo xam ne jaru ko woon ay dama manqué paas may ma paas ñu jox la nga taxawaat keneen nga ne ko dama manqué paas façon la ci yelwaan mais bu yàggee da lay tuumaal ndax bu yàggee bu la nit gisee gisaat la danaan kii nii la mel mais dafa am koo xam ne ñemewul wax ni ngir yàlla dimbale ma mënul wax ni mastata mënul wax ni kër ga dara nekk parce que gor la comme yow xool ko ci yow bu doon yow nooy def ndax moom dina mën a ñëw taxaw ne dimbale ma ngir yàlla may ma ngir yàlla du ko mën mais li muy mën mooy na dama ñëw ba fii manqué paas bëggoon nga may ma paasu Grand Yoff wala paasu Dakar wala paasu fenn boo amee rek jox ko jox ko ndax yow li nga def comme yàllaa tax ak moom lu mënti am yow da nga am tuyaaba kon defal donte am na ñoo xam ne leneen la ñuy def. mu des nag ki nga xam ni day yelwaan ca tegu ko fen kooku même boo tabewul ci moom yoon topp la dara imagine nga jóg ne rek ni dama bokk ci benn kuréel dama war a nekk yelwaankat nekk xale bu góor mën a bay mën a liggéey mais ci kuréel bii laa bokk kuréel bi ku ci bokk da nga war a yelwaan bu ko defee gàdd sa bool wala gàdd sa fatt nit ñi ci oto yi fatt nit ñi ci bërëb yi joxe leen ngir diw joxe leen ngir diw loolu nekkul yelwaan loolu agression la kooku moom agression la ku nekk na ko bàyyi xel bépp góor bu koy def yaa ngi attaqué sa bopp yowmal qiyaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bàyyiwul laaj ba sa ker sa dem yowmal qiyaam boo dekkee doo gis nga bëgg a nekk xale bu góor def leen ci ndagum nangam def leen ci xew-xewu nangam nangam nangam yooyu itam bu yàggee day dem ba dafay indi jafe-jafe ñi koy defit nañu góor-góor lu ci mel noonu borom bi dafa ñu xamal ni mbaax njëriñ rek lay indil doomu aadama bi mbaax njëriñ rek la indi doomu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa tabe woon ci lu dul weeru koor su weeru koor ñëwee mu gën a tabe moo tax ibnu abbas radiallahu anhu mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada annaas wa kaana ajwada ma yakunu fi ramadan hiina yalqaahu jibril nee na yonent bi gënoon tabe ñépp bu weeru koor ñëwee mu gën a tabe xool leen yonent bi lan la am mbokk yi dañuy ñëw jox ko mu yëkkati joxe ko koo xam ni doon na toog këram ñeent fukki fan cin du fa tàkk kooku su joxewul wàcc na su joxewul wàcc na waaye xool leen ko mbokk yi lu mu am lu mu néew néew da ciy joxe bu weeru koor ñëwee dina joxe ba këram du am lu mu ndogoo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yow nag ana say compte yow commerçant bi ana say compte bancaire léeg-léeg nga ne réew mi amul dara fekk yaa ngi jee benn denc benn deux cent million SGBS boo nee dëkk bi doxul dangay wax rek dox na parce que yow dem nga ba denc li nga denc bu bëree te fit nag mu nekk wàllu commerce am na ci loo mën a joxe xalaat ci yàlla mi la teral ba nit ñëw ci yow di la laaj looloo war a tax nga yëkkati joxe ndax ñi ñàkk teguñ ko seen boppam ah, yow mi am du sa njàmbaar gënoo jàng kenn dàqoo liggéey kenn ëppoo kenn dara yàlla la ubbil xéewal nga nekk un grand commerçant di wàcce ay bato ceeb di wàcce di wàcce macha allah yal na yàlla barkeel ko yokk ko waaye danga nga war a xalaat ci yàlla mi xañ ci âge bi nga am am nañu ko am fukkam bu ñu ñëwee taxaw sa di la ñaan wal nga xam ne bu ñu amoon li nga am kenn du la ñaan kon loolu teraanga nga koy jàppe nga ne ah teraanga bi ma yàlla defal kat naa ko bokk ak samay mbokk jullit naa ko bokk ak samay mbokk jullit mën a joxe dimbale nit ki mu am liggéey jox ko ci lu mu jàpp wutal ko fu mu jàpp même moom bu yorul sax gore buy wax leneen yow jàppal ci li tax ngay def parce que yàlla mi la jox yàlla bu doon kenn ku nekk day yëkkati rek jox la seetaan la di sotti mais daf laa jox ngir nga joxe maanaam nit da nga yore jikkoy courant fi ñu ko dugalee ci prise bii cat ba cat léppay tàng doo ñëw ni première bi ne boo tegee nga lakk cat ba boo tegee doo lakk ñoo yem yàlla mi yëkkati jox la daf la ni joxal anfiq unfiq aleyk joxeel ma joxaat la joxeel ma moo tax borom xam-xam dañuy wax ni wërsëgu doomu aadama daa ñëw bu ci mbaggam ci mbagg fii traça bi yem fa la wërsëg wi taxaw mu am raakool nag bu agsi ba ci sa tinq mu am tëjukaay comme robine léegi nag ñu lay seetaan ndax bu wërsëg bi ñëwee dangay ngay ubbi jël dugal ci sa bopp wala nga dugal sa gémmiñ wala dangay ngay ubbi di jox ñeneen kon ubbil di jox ñeneen waxuñ la li nga am yépp nga joxe ko ba perte ko déedéet wala tabsut yadaka kullal bast yàlla nee na bul joxe lépp nga toog waaw bul joxe lépp nga toog kon yàlla jox na la déjà fulla ak fayda ak personnalité mooy am nga mais d'abord sa bopp sa njaboot ndax ñoom yàlla dala leen di dala koy laaj kon bul ñooñu bu leen lakk ñàkkloo waaye bul joxe it nag ñu naan yaa baax yaa baax ba nga xëy ñu ne yaa bon parce que boo tàmmee joxe-joxe ba amatoo loo joxe nit ñi duñ la waxal ku nekk day ko non xamoon naa ko diw nii la mel diw nangam déedéet mais li nga am dee ci génne joxe yàlla leen subhanahu wa taala deel joxe ci li nga am génneel nga joxe mais bul joxe lépp allahu te loolu ngay joxe mbokk yowmal qiyaam dafay nekk ay montagnes yoo xam ne boo ko xoolee dangay ñaan yàlla gën koo gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digle joxe saxaaba yi di joxe ñenn ci ahlu suffa ndeysaan xool ni ñee di joxe ñoom Ousmane ibn Affan ñi borom alal yi di génn di joxe nit ñi di rang seen buntu kër yi ndeysaan saxaaba yi mosuñu nangu loolu di génn ñoom waxuma la toog sa buntu kër di xaal ku ñëw laaj mais yaay dem fekki ndeysaan waa ahlu suffa nga xam ni amuñu sax lu ñu lekk nit ñee desal indi leen ñu ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko zahaba ahlu dasuuri bil ujur ne ko yonante bi fay yi yàlla digle borom alal yi yóbbu nañ ko yóbbu nañ ko parce que yonante bi li mu wax ci joxe li ci nekk ci tuyaaba soo ko déggee par force da ngay bëgg nekk joxe kat mais ñu ñëw di kaas ne ko kon borom alal yi yóbbu nañ teraanga àdduna yóbbu teraanga àllaaxira ndax fii xamoo ni mbokk joxe dafa neex joxe jaamu yàlla boo xam ne boo koy def yow da kontaan lan moo tax yow yaa ngi toog yow laajoo mais yaa ngi joxe kii joxe xam lu mel noonu boo toogee di joxe boo deful ndànk foofu la la iblis di naxee léegi ko non yow yaay ngandem yaa yaay loolu waa vraiment bu du woon ak yow ñii kenn du lekk foofu la lay jéem a naxee mais jàppal ni yàlla la jox pour nga joxe mu neex lool. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ngeen ne lan ñu ne ko borom alal yi yóbbu nañ yiw bi teraa ngay àdduna li nga wax yëpp ñoom ñu ngi koy joxe ñu dem yowmal qiyaam ñu bëgg a yóbbulu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne leen zalika fadlullahi yutiihi man yasha wërsëg xéewalu yàlla la ku ko neex la koy jox yàlla xoolul juif xoolul chrétien xoolul benn xeet mooy yëkkati di joxeel boppam xoolu ko ci ndey ju liggéey xoolu ko ci baay ju liggéey xoolu ko ci dara ci coobareem la koy joxe comme yàllaay joxe nag léeg-léeg dangay gis famille yàlla yëkkati kenn jox ko keneen gàtt xel pour pourquoi yàlla joxuma de yàlla kenn dox pourquoi parce que yàlla laa yusalu amma yafal nee na kenn du ko laaj li muy def moom mooy laaj moom yàlla mooy taxaw ne lu tax mais kenn sañun wax yàlla lu tax nga jox Sàmba joxoo ma lu tax nga jox Demba parce que dañ laa moom te yàlla mooy fa'aalun limaa yurid loolu mu la jox nag bul foog ñu teraanga la de certes ci benn côté teraanga la mais nattu la eh, balaa ngaa xam ne nattu la yonent bi nee na sahaaba yi dalika fadlullah yutii man yasha ginnaaw ba mu leen koy wax ndeysaan da leen cee tegal na ngeen di def tasbix soo sëlmalee subhaanallah 33 alhamdulilah 33 allahu akbar 33 laa ilaha illallah ngeen tëj ko nee na loolu teraanga bu bari la gaa yi jóg di dem ba ci àgg ku nekk na waa mais lii ni mu ko joxee borom alal dañ koy def ba pare joxaat waaw moom ñu dañoo ñëw pour mu régler ñu suñu problème <coughs> non seulement jox nañu luy régler mais li mu ñu joxaat ñoom ñee ko bokk ndax ñii di joxe seen alal tamit dañ koy def subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah allahu ñu ñëwaat waxaat la même chose yonente bi ne leen nag <laughs> loolu nag ci mënu ma ci dara zalika fadlullah yuuti may yasha loolu nag mbiru yàlla la mooy séddale mooy jox ku ko neex li lay wan ni alal nattu la ki ko am bu deful ndànk yow yowmal am day bokk ci ñi njëkk a dugg àjjana bu deful ndànk mën naa bokk ci ñi njëkk a dugg ndax yow man qiyaam bu ñu dekkee kenn ku nekk noo amoon dañu la koy laaj benn ñaar dërëm ñaar dërëm foo jëlee foo dugal noo ko utee noo ko amee foo ko dépense nga ñëw yow mal qiyaam ki indi un million ki indi cinq mille ki indi mille francs ki indi vingt cinq francs ak ki indiwul dara bu ñu ñëwee taxaw ku nekk ñu war laa laaj ki indiwul dara amul dara bu ñëwee lu ñu koy wax foo ko jëlee foo ko dugal li muy tegtal day yomb ñu ne ko demal àjjana ki indi 500 ñëw mais ki indi 1 million du fi def ay waxtu dërëm bu nekk nga war koo régler ki indi ay milliards nag nga xam ñëpp dañu bëgg a nekk multimilliardaire nga xamante ni waxuma la dara même benn clé USB soo ko jëndee ci sa xaalis rechargé ci musique déglu nga ko wala dégluwoo ko di nga ko lay ci kanamu yàlla même benn carte mémoire soo ci photo woon jigéenu jàmbur wala nga seetaan ci njaaloo lu tax nga jënd ko lu tax nga def ko pour quoi ndax lii jaadoon di nga taxaw ci kanamu yàlla nga lay ko même benn kasetu musique boo ko jëndee kon foo jëm nga bëgg taxaw lii lépp nga war koo la benn par benn moo tax mbokk yi yombul yombul yombul yonent bi sallallahu bu weeru koor jotee ndeysaan ñi néew doole dañuy ñëw ci moom di diiru seen bopp yonent bi di sant saxaaba yi nag ku nekk na génne li mu am loolu mooy cosaan mooy cosaan ci dimbale ñi néew doole ndax léeg-léeg nit dina ñëw ci nit doom moo ko tax a ñëw mais xam na ni amut xam na ni amut mais doom ak fi ko nit ñi teg jàpp na ni bu waxee nit ñi danañ def alhamdulilah yàllaay may loolu yàlla nañ ko yàlla may ñoom bi ñu ñëw ci yonante bi xam nañ ni <laughs> yonante bi amul dara mais dañ ko koy wax yonante bi sant saxaaba yi ne leen génne leen joxe leen tuyaabay joxe kenn xamul nu mu toll. Umar ibnul Xattaab daal di daw këram ne tey Abu Bakr moom lu ñu mës def mu raw ma waaye tey incha allah dinaa fexe ba du ma raw Umar ibnul Xattaab dem këram xool budget yépp seddale ko ci digg bi diri indi saxaaba yi ku ne diri indi bi Umar agsee kontaan ne tey moom Abu Bakr il faut ma jiitu ko musuma koo jiitu ci dara bi mu ñëwee indi yonent bi ne ko loo fa bàyyi mu ne ko mislahu dama natt li ni mu tool yépp ma xaaj ko jox la genn wàll gi pour nga jox ko fi sabilillah yonent bi ñaanal ko noppi ñu jékki seen Abu Bakar mu diri cuñwaar yaag kudd yaag cin yaag lépp di diri di ñëw Umar di ko xool ba mu agsi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko loo fa bàyyi mu ne ko allah wa rasuluhu Umar ni bis ni tey dootuma xëccoog Abu Bakar amul lu ñu xëccoo lu dul Abu Bakar raw na ma borom bi ne wa sayatajannabuha al atqa alladi yu'ti maalahu yatadakka wa ma li ahadin indahu min nicmatin tujza illa btigaa wajhi rabbihi l ala wala sawfa yarda yàlla wax ko ci kan abu bakar siddiq allahu akbar wa yatajannabuha al atqa abu bakar dafa moytu ba moytu safara te bokk na ci ñi ragal yàlla ba moytu allahu akbar umar taxaw nag ne dëgg-dëgg ak a neexoon ma nekk benn kawar ci dënnu Aboubacar Siddiq ki gën ci xeet wi ginnaaw yonent bi mooy Aboubacar Umar nee na maa ngi doon ñaan yàlla waxuma ma nekk nit mais ma nekk kawar ci dënnu Aboubacar ndax xam na ni dënnu Aboubacar kawar bu ca nekk doo dem safara xoola ma ñii ni ñu meloon ci wàllu joxe ci wàllu yëg mbokk yi sooy joxe yàlla jox la beneen bi mbokk yi mbokk na ci tabeg yonent bi Jibril weeru koor da doon ñëw ci yonante bi ñu jàng di ko fextali quran loolu moo lay wan ne quran loo ko mokkal mokkal da nga ko war di réviser da nga ko war al quran mag ñi nee nañ dafa am fayda gëléem gu dàngañ la takk rek moo ko fiy bàyyi boo ko bàyyee mu dem gis nga gëléem bu dàngañ da ngay takk mu xaar la boo ko tekkee mu dem ci àll bi dootul ñëwaat yow mi mokkal quran bul jàpp ne mokkal naa ko naa ko sàggane déedéet boo ko sàgganee rek nga ñàkk ko quran da ngay jàng di jàng maa ngi ndeysaan fàttaliku benn extrait bu daw yaram dañu toog ci xaram bi moom ci imaam yi ndeysaan kuy ñëw maahirul mu ay xili la bi muy ñëw escorte jege ko ni sax mu ñëw ba dugg fi mu war a jiitee toog maa ngi ci catu bunt bi yenn imaam yi toog ma gis mu ñëw jël mushaf ubbi nii di jàng xoola li des ci timis nodd lañ ñoom bu ñu noddee dinañ toog 10 minutes doogu julli Sénégal a ngay fekk rek sëlmal pare nodd rek kàbbat da ngay dégg ñuy wax yoo xam nga fu ñu jëlee wax jooju timis dafa gaaw lan mooy problème mu gaaw ci waxtu yi waxtu yi amul bu gaaw loolu dañuy nax timis dafa gaaw dafa gaaw da ngay dégg rek ñu nodd rek liqaam non loolu bokkul ci leerante bi jàngale boo noddee mooy dangaa woo nit ñi da ngeen di xaar mais jeexal liqaam nodd rek liqaam loolu yaa xëy bokku ci maa ngi seen saa maa yi mu ngi téye nii di di nafar ma toog ba ci yàgg ma ne laa su ma sëñ daara nii la doon def su waree jiite bu agsee day ubbi téere bi xoolal li mu war a jiite da koy jàngaat loolu moo lay won ni parce que lan moo tax ubbi bi jàngaat bi tuyaaba bu dul jeex la nga ñëw jiite ko nit ñi mais du mokkal naa alxuraan pour naa nekk benn héros dootuma ko leen fu ma taxaw juum ci xuraan du gàcce gàcc ci xuraan du gàcce moo tax jibril da daan ñëw ci weeru koor wu nekk yonent bi di réviser yonent bi xam ngeen yonent bi du fàtte waaye yàlla da koo defloo loolu pour ñun ñu roy ko yàlla subhanahu wa taala wax na yonante bi sallallahu alayhi wa dinañ la jàngal ba doo fàtte sa nuqri uka fala tansa mais teewul da koy def mbokk yi mu ne fala rasulullahi ajwada bil xayri min mu lmursala yonent bee gën a tabe ci yiwu ci ngelaw lu ñu sànni lu mu yor da koy jox mbokk yi kon nañ leen góorgóorlu ci préparer weeru koor wi ci shaabaan bi ku nekk ci ñun góorgóorlul ba nga bokk ci ñuy joxe ci ñuy dimbale ay nit ndimbal nag na jiitu ci say mbokk yi nga bokkal deret ñi néew loole koo ci mën a dimbale dimbaleel ndimbal denc la boo xam ne du yàqu mukk mukk mukk saa boo saraxee sa bàmmeel la lay xaar wallaay sa bàmmeel la lay xaar te boo dekkee boo duggee sa bàmmeel sarax day ñëw sa côté càmmoñ taxaw ginnaaw bu julli taxawee sa ndeyjoor fu fa malaaka yi naree jaar sarax neleen leen du ngeen fi jaar ndax kii daf doon joxe daaw te alal kon nag bul jàpp ne awma ma du ma joxe déedéet yëkkatil nga joxe misaal bi mooy Ali ibn Abi Taalib bi yonent bi ne saxaaba yi nañu joxe moom amul dafa dem jël sémmiñam daw ca àll ba gor ay matt takk ko ñëw di ko jaay gaa yi di ko ree waaye kii moo sonn yow amoo lu la ci dugal effectivement <coughs> bi mu ñëwee di jooy joxe yonent bi ne ko lan la mu ne damay génn ñi nit ji ma rey yonent bi ne déedéet am na dërëm boo xam ne moo gën un million parce que fi mu jaar dafa lew kon mbokk fexeel nga bokk ci ñuy joxe te jullit day am xol bu yaatu ci dimbale ay mbokk jullitam beneen bi mooy euh, anas ibn malik nee na kaana almuslimuuna ida daxala chaabaan inkabbu ala almasaxif fa qara'uuha wa axraju zakata amwaalihim taqwiyatan lildaif walmiskin ala siyaami ramadan anas ibnu malik nee na jullit ñi démb saxaaba yi su weeru chaabaan duggee ñu commencé nag quran di jàng inkabbu alal masaxif di jàng téere bi di yokk njàng mi di génne seen alal di dajale di denc ngir dimbale ñu néew doole mën leen a encourager ci koor gi mbokk yi kon weeru koor weeru yiw la weeru njëkkante la weeru sàkku tuyaaba la weeru yokku daraja la weer la woo xamante ni roy ci sa yonante ni mu ci doon mel sallallahu alayhi wa sallam ni nga tabee nag ci joxe nanga ko tabee ci jaamu yàlla soo amul joxe sa jaamu yàlla na gën a yaatu soo amee joxe it sa jaamu yàlla na gën a yaatu kon yonent bi dafa nekkoon koo xam ne jaamu yàlla da cee sawaroon ci weeru koor moo xam woor la guddi jàng alquran tudd yàlla moytu li nga xam ne daf lay tayelloo woor ba pare di seetaan ay film di seetaan ay sket di seetaan ay match góorgóorlul weer wii weer yiw la ku ko yàlla xañ xañ na la bépp teraanga mbokk yi bokk na ci weeru koor mbokk yi weer la woo xamante ni nit ki da ciy sang boppam ci ay bàkkaaram bàkkaaru jëw bàkkaaru xool bàkkaaru dëglu bàkkaaru dox bàkkaaru wax mbokk tënkal sa bopp balaa ñu lay tënk jullit day tënk boppam bëgg-bëggu àdduna yi kenn mënu koo jeexal balaa nga xam ne def lu bon baaxul ki def lu bon bu ko defee ba pare day rus soo fenee jël alalu jàmbur wala nga triande jël alalu jàmbur wala nga naxe jaay fi jàmbur soo paree yow sa bopp sa conscience moo lay yedd kon góorgóorlu ci lu mel noonu àdduna kenn amu fi 100 pour cent xam nga lu fi nekk gore ngor yow góor na ko mel yow jigéen na ko mel waaye bëril di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonent bi kanzun laa na julli ci yonent bi ndàmb la bu dul jeex mukk kon mbokk yi fa sallu wa sallimu ala habibikum muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen bi bokk na ci nag tabe boo tabe ci alal ak jaamu yàlla na ko tabe ci sa njaboot sa jabar say doom nga tabe ci ñoom tabe ci sa jabar ak sa doom lu muy tekki mooy jox leen soo waree joxe soo warta joxe amal kàddu gu neex ak ñoom te xam ni jéggale ak jéllale mooy dimbale nit góor ak jigéen mënuñoo yem dañu ko yëkkati jox la ko ndax xelam bu gàtt na ko mottalikoo yore ko ci sa xel mu mat su seen xel tolloo woon duñu la ko jox dañoo yaakaar ne dangaa baax moo tax ñu jox la kon ragalal yàlla xoolal yonent bi sallallahu alayhi li mu tolloon ay jabaram dañu doon def lu nekk ci wetam mais day ànd ak courage am xam ne ay jigéen nag xam nga ay soxnay yonente bu ñu toogee yaa Aysa yaa sa bay jël fonde di ko sotti wante quoi mbàttu fonde kii tuur moroom kii tuur morom <laughs> yonente bi sallallahu alayhi xool leen ku doo ku mu doonoon ci ñun mën nga wax wax ju jéggi daaw mais yonente dafa xam ne dañuy kaf Abu Bakar moo ñëw tax ñu bàyyi ko kon lu mel noonu mooy da leen di may yaatu léeg-léeg bu ñu bëggee kaf ñu kaf bu ñu bëggee ree ñu ree waaye nag bu wax dëgg jotee ak fermeté nag nga wax dëgg nag fermé mais doo fermé wu à 100 pour cent ubbeeku ji bi ci tëju ci biir góor gu joŋe du ko def góor gu ragal yàlla du ko def kon da ngay ubbeeku ci sa njaboot ba ñu ñemee laa wax seeni soxla ñeme laa di seeni soxla bëri na kër yoo xam ne alal ma nga fa mais jàmm amu fa lan moo tax parce que benn gendarme moo fa nekk bëri na kër yoo xamante ni alal amu fa mais jàmm fa ne parce que ka fa nekk dafa jàpp ni ñii ay rakkam yu jigéen lañ ay njabootam lañ ay magam lañ jigéen mbokk yi du mat waaye nag di leen fàttali ci koor di leen yee ci fajar di leen naafilaloo loolu mooy melokaanu jullit sa jabar boo ko bëggee soo ko nobee soo ko loofee ni ko gaa yi wax bu fajar jotee yee ko ne ko soxna si jógal naafila waaye sëñ bi yow nga jóg naafila bàyyi sa jabar muy tëdd yow xanaa bëggoo nekk ak moom àjjana ngeen dugg àjjana mais waxal même bu indi waxal jullit day wax dangay wax sam benn grand ndeysaan yàlla ko yàlla dëgëral loolu lay wax man loolu lay wax fa barki dem maa nga sama waa kër ñuy waxtaan ci wàllu jógooy mën a mën a kër gii de ku fi nekk biddanti sama kër gii macha allah ku fi nekk biddanti yaa ko tey ku fi nekk biddanti yaa ko tey parce que bu ma jógee dama yuuxu ci kaw ñëpp yee xale ñu jóg jàng ñëpp jigéen ñëpp ku naa fi lawul moom da koo defut waaye moom mu yee naa la wax naa la jóg leen jóg leen jaamu yàlla jóg leen jóg leen jóg leen jóg ba dañuy fatt jóg leen julli jóg leen jaamu yàlla kon góor ña fu nekk nag ku ci bëgg a war na bàyyi ko waaye beneen mooy ñi nga xam ne ñoo gën a jege diine ñooñu bu ñu génnewul bi dent seen diggante mooy parewuñu pour xeexal diine gis nga ndaw ndaw boo dee jàngalekatu Qur'an wala ngay jàngalekatu arab wala ngay jàngalekatu diine xaw ma kan mais yow waru biddanti mais ndeysaan nekk si néeg rek na ci tiktok bi rek tiktok bi rek ba deux heures du matin nga bëgg a nelaw da ngay xaral continuer imagine tiktok fii ak jaamu yàlla lan moo ci ëpp doole teelal tëdd teelal yeewu amul kuy nelaw ba doyal balaa nga xam ne nelaw du jeex soo nelawoon léegi ba ñu yee la boo toogaatee rek nelawaat ndax lan moo tax laqad na al insaana fi kabad nit ci coono la ko yàlla bind liir gis nga ni muy lemoo ci biiru ndeyam ni mu fay lemoo loolu lay continuer ba bu juddoo il faut ñu fudd ko boo nelawee dangay ngay sonn soo yeewoo dangay ngay sonn soo lekkee dangay sonn soo sangoo da ngay sonn soo naanee da ngay sonn soo dawee dangay sonn soo toogee dangay ngay sonn kañ nga dul sonn mooy bis bu ñu yàlla yóbbu àjjana yàlla nañu yàlla yóbbu àjjana allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi wa barik fi ma atayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk allahumma iftah arzaqana allahumma wa baarik fii fihi ya rabbal alamin yàlla yal na nga ñuy yokkal suñuy wërsëg yal na nga ñu may nu ñu ko mën a yore ndaw ñi yal yàlla ubbil leen bunti xéewal yàlla ubbil leen bunti baraka yàlla defal leen barke yàlla may leen ñuy joxe ba dootuñu leen jox yal yàlla aar leen ci diine yàlla dëgëral leen aawaakumullah nasarakumullah jabarakumullah yal na yàlla takk leen yal na yàlla jàng leen yal na yàlla aar leen yal na yàlla musal leen ci seytaan ak njabootam yal na yàlla musal leen ci fakkatalu ku nar a jëm ci yéen yal na yàlla baare ko ku nar ci yéen musiba yal na ko yàlla dëpp ku nar ci yéen caaxaan yal na ko yàlla fomm ku nar ci yéen lu baax yal na yàlla dëgëral ku nar a def ci yéen juumte yal na yàlla teggi ko yal na ñu yàlla naf ñu bokk ci mbooloo muy jëm ajjana yal na yàlla teel ñu boppam ba ñu dem ajjana yal na yàlla dëgëral ñu boppam ba ñu taxaw buntu ajjana yal na yàlla boole ñu ak yonent bi ñu ànd ak moom ca àjjana yal na ko yàlla defal suñuy njaboot defal ko suñuy baay defal ko suñuy yaay defal ko suñuy maam defal ko suñuy sëriñ defal ko suñuy kilifa defal ñu ko ñun ñépp ñu dajaloo dem àjjana wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin